Beytik. bonjour Pape Cheikh namoon naa leen. yaayu Tidjani <laughs> borom anniversaire bi. naka suba si. ça va maa ngi fi rek maa ngi si jàmm alhamdulilah. cool euh, nuyu téléspectateur TFM yi ak euh, yeewu leen yëpp euh, di leen naan namoon naa leen. Hmm. et Tic est de retour donc aujourd'hui Pape Cheikh li ñu leen indiloon si rubrique yeewu Tic. Hmm. c'est le Falling Star Challenge. Hmm. alors mu nekk benn challenge bu bees boo xamante ne ni Russie la génne. ñu seetaan vite fait vidéo bi. su ko defee bon xam naa ne nag boo ko gisee dina la. xaw a jaaxal tuuti. mais bu ñu seetaanee video bi ba ñëwaat. boo ko expliquer ñu comprendre dinaa la expliquer dinaa la expliquer ngeen comprendre. très bien on y <laughs>

yii di métti nit yii di neex ñu bëri c'est au choix l'essentiel mooy euh, euh, tout se passe euh, ci monde technologie yu bees yi donc c'est ça le monde de Merry Beye presque tous les jours il faut mu am lu ñëpp di waxtaanee lu ciy xew donc challenge bi nga xamante ne actuellement mu ngi def tour du monde. effectivement Pape Cheikh xam nga avant dañu amoon ice bucket bi mooy bi nga xam ne da ngay sotti glace bi donc voilà loolu de loolu amoon na fi ay accident yu bëri ñu foofu. dem si my feeling challenge mooy bi Drake wayoon nga xam ne da ngay ubbi sa oto bi di di daw ngay kii boobu tamit ah, muy am ay accident yu bëre mais bi bi bi bi challenge en fait c'est c'est on va dire que c'est inoffensif parce que amul gaañu mhm. euh, ñii ngeen gis ñu daanu nii ci suuf daanu wuñu mhm. en fait euh, le challenge consiste à euh, à te poser étendu sur terre da ngay tëdd sa bopp ci suuf comme si da nga trébuché wala da nga da daanu léegi voilà nga jël sa affaire yëpp nga tasaare ko wala li nga yor sa ay bien euh, mm-hmm. nga tasaare ko ñu foto la mm-hmm. léegi loolu la ñu tuddee star falling challenge mm-hmm. dañu ne challenge bi Russie la la jóge donc euh, mais Russie euh, ñi ko doon def c'est les pré c'est les personnes maanaam ñi nga xam te ne dañu am alal donc pour wane seen alal pour wane ñoom li ñu am dañuy ñëw par exemple gaare seen benn oto wala hélicoptère comme ni ngeen ko gisee alal yépp daaneel ko ci suuf daal di daanu daanu lu mel ni ñoom dañoo <laughs> daanu daanu <laughs> Pape Samba li de boo ko defoon ak sa kalandoo bii di xeeñ saw challenge bi dina jën ndaane heureusement ba defoo ko <laughs> mais léegi ba baabu laay sànni koraam daanu kenn mësul gis loolu mais léegi biñ ko jëlee Russie Chine xam nga waa Chine dañ ko jël eh. détourné ko ñoom tamit mm. di def seen euh, seen seen Starfalling Challenge mm. dañu ne parents yi enfants sportifs même ñi nga xamante ne ay propriétaires de char la ñu mooy ñi nga xam ne ñoom muus ñoom tamit dañ koy def mm. léegi dañu dem ba particularité bi mooy que ne gouvernement chinois ak police chinoise ñoom tamit dañu bokk ci challenge bi eh ñu ne nag dafa <laughs> ñu ne nag loolu dafa dem ba commencé ëpp parce que challenge bi dafa dem ba inondé réseaux sociaux yi. c'est ça donc euh, du coup aujourd'hui euh, dañu nekk challenge bi comme li nga wax léegi. Mm. am na ñoo xamante ne ni dañ si offusqué wu dañuy naan lii euh, dafa waa. <laughs> waaw mi ngi nii. c'est ton mari ça. c'est pas mon mari ça c'est Pape Doudou <laughs> Pape Doudou mi ngi nii def na challenge. donc pour dire man dafa am ñoo jël samay këyit ak sama mburu mi ñu ma la xasal ak enveloppe bi def ko. je vous offre ça je vous offre tout ça. ci euh, Facebook bi <laughs> donc euh, donc. waaw donc euh, voilà am na nag ñu bëri ñoo xamante ne dañu commencé merci affaire parce que nee nañ déjà dafa ñàkk xorom un am ñu ne voilà euh, lu tax ñuy def étalage seen alal wala seen. chacun est libre de faire ce nga def na ñoo xamante ne dañu ci génnee sax benn en fait au moins. Hmm. challenge bi amul euh, amul amul ay gagnant et c'est pas dangereux. Hmm. donc ma ne woon rek comme instant yi instant de challenge la lu génn ñu ne dañ ci challenge ma indil leen fa Falling Star challenge léegi nag ku ci am. Hmm. sa Falling Stars challenge xanaa nga posté ko rek yónnee ko euh, euh, si page yeewu leen. Mhm. ñu posté leen ko rek su ko defee même léegi les ñi nga xamante ne dañu maladroit. Mhm. gaaw daanu. Mhm. gaaw <laughs> ñoom ñëpp. léegi mais c'est vrai mais léegi boo leen daanoo. foto leen seen bopp ngeen ne star leen seen affaire bi voilà voilà. voilà dugal amul problème. voilà ñun moom Sénégal euh, suñu challenge yëpp ay woy la ak ay fecc. il était en communication bah oui bah oui bah oui ana challenge Pape Doudou bi. Euh, c'est quand même euh, nu mu tudd. Star Falling Challenge Star Falling Challenge voilà donc bii mooy. bu Pape Doudou c'est très tendance voilà. donc c' est un challenge bu nit yi xewal merci euh, Merry Beye euh, Diouf pour ces infos 10h07 euh,